pàcc jàkkaarloo bi ñu am mbégte ànd ceeg euh, Modou Mboup Modou Mboup mi ngi bokk ci aftu donc dem beeg dikk bi miin nañ ko tàmm nañ ko xam nañ ci luñ ci wax mën nañ ko takk téere buñ ko takkul téere it ñu def ko gàllaay teg à côté xaar alors moodu euh, BRT bi BRT bi bu ñu jàppee ni Dakar bëri na chantier est-ce que priorité eh, priorité la jël 300 milliards def ko ci jumtukaay gu mel bu ñu xamee tamit ni am na lu bari lu muy saafara mais ñu mel ni yéen gis ngeen ci loraange bismillah eh, jërëjëf maa ngi am mbégte ci teew tey ci jàkkaarloo bi di leen eh, gërëm it di rafetlu invitation bi di gërëm seen liggéey ci àddina bi hmm. ñu sant ci yàlla bu baax a baax BRT defe naa fan yi ci gannaaw semaine passée seen xale yi jigéen yi invité woon nañ ma fii mm-hmm. ci fin émission bi liñ ma proposé BRT ma jël man sama initiative boobu en tant que membre afti transporteur mm-hmm. ma ni man d'accorduma ci waaye mu ni ma yéen ma ni ko man mm-hmm. lu tax lu tax lu tax d'accord ci tey bi ma ñëwee nag yàlla def suur boobu fekk na defaguñu pose première pierre bi <coughs> si bi ñu defee pose première pierre bi nag transporteur ni ma vraiment li nga waxoon ñëw na yay nga moo tax tey mën naa wax ni ci seen tour laay wax ci émission bii. Mm-hmm. war a leer ci jàkkaarloo. Mm-hmm. waaye bële moom nanguwuma woon a waxaat ci turu kenn lu dul man sama. ci turu Modou Mboub Modou waaw waaye tey moom laa waxoon <coughs> la tax loolu mooy BRT. baax na de ñun du ñu ni baaxul. parce que nangu nañ ko. te dañ ñoo waxoon lu tax ñu nangu ko bañ koo waxee man mel na man ci transporteur yi fa nekkoon ci afti président CIE yeeg ñëpp a ngi toog man ma yëkkati sama loxo ni d'accord waaw lu tax d'accord expliqué ñu rapidement waaw. xam nga lu tax d'accord ma woon mooy hmm. dañ ñu yàgg wax loo xam ni. suñu demee ba ci biir ba jëf jot lañ ñu doon wax ba ñu d'accord ak li ñuy jëf dafay wuute ñu dund ko dundati ko. Hmm. tañ di ay opérateur économique hmm. di jël suñu alal di ko investir. Hmm. di dem si banque yi di leb. pour fay ba pare di am jafe-jafe ndax bi ñu ñëwee dañ ñu ni day am ay lignes de yoo xam ne <coughs> kaar yooyu biis yooyu ko war a def ñooy ëpp capacité suñu suñu biis yi ñun ak Dakar dikk lañ koy jox. Mm-hmm. ñu ni kon d'accord mais. lan mooy bus de rabattement nga baal man. mooy ñoom ñooy jëli. Mm-hmm. di indi ci BRT bi. ay bus yi 80 places 60 places. lañ ñoom ñooy yàqal lañ waaw léegi loolu nag ñun ak Dakar dem dikk ligne yooyu ñun lañ ko jox. Mm-hmm. ñu ni nag li ma ne leen ligne yooyu nag man dafa léerul ci sama bopp parce que lim yàqal moom wax ngeen ko xam nañ ko. Hmm. parce que dina nu yàqal ci afti bi di set lignes yoo xam ne dañ koy éliminer. Hmm. ci 18 kilomètres yi mu jël rek di set lignes yoo xam ne ñun bokkatul. CIE bi ma bokk muy Daaru Salaam nga xam ne maay modérateur u CIE bi maay vice président bi topp ci Ndonga Fall. 7 lignes yooyu yëpp Daaru Salaam la. yéen a ciy daw yow. Daaru Salaam ko moom yeneen sëy ñoo bokk nawet bi moo ci moo ci topp lii yëpp mën naa leen cité fii yoo xam ne da koy ma ne waaw est que man loolu mu may hmm. ndax dana ma amal njëriñ bu ko ëpp loolu question la. Hmm. waaw lii ma man leen déet am ndaa toj ndaa nag taxut a bari ndaa hmm. afti état moo ko taxawal. di ko xolaat muy lu yàgg di procès bu yàgg. ci jamono Abdou Diouf 92. ba yàlla def cinq booba ku nekk xam na ni sénégalais bu nekk xam na ni dem ak dikk am na problème am na jafe-jafe. bi Abdoulaye Wade ñëwee ni seen transport bi dafa am jafe-jafe ci dama ko bëgg a régler ñun la jëkk a recevoir bi mu jëlee réew mi suur boobu ñun ak photographie rek ñoo fa nekkoon mu ni transport bi dem ak dafa am problème ca dafa maa yitteel. bi mu waxee ba daaneel ñu ni ko ah am na projet bu fi nekk nag boo xam ni socialiste xalaat dañ ko bàyyi fi ba tax sax euh, en 1997 ñu créé CETUD ni ko demal ay ingénieur lañ fa euh, yóbbu woon yoo xam ne ñii nga Sotrac ñii nga nekkoon ci transport terrestre ñu leen dem leen toppatoo transport urbain bi loolu moo tudd CETUD 1997 mu ni ah ñu ne waaw mu ni ko jox leen ma projet bi lan moo ko gàllankoor ñu ni ko apport personnel de moo nu jotele ak social si suñu oto yu màggat yi ñu war a yàq ñu ni leen jox leen ñu prime à la casse ñu ni mënuñu ko ñu ni kon ñu ni mënuñu ko loolu rek moo ci def gàllankoor ci la waxe woon ni man danaa jënd oto yooyu sànni ko géej jëni di ci dem Sénégal yëpp ni wax xanaa góor gi day day xaw ma day bala xaw ma nu ko waxee gëmuñu ko <laughs> tey loola mooy dox oto bu ñu parqué muy car rapide wala njaga njaay la ñuy ba pare kooku doo ko am tata kon ku amul car rapide wala amuloo njaga jaay boo am licence urbaine doo am tata yàlla dogal na li may wax lu leer la parce que commission réforme boobu man maa fa nekk depuis 2005 ba léegi autorité yëpp ñu ci bari changé nañ leen transporteurs yi am na ñu nekkoon dañuy jóge keneen ñëw waaye man ba léegi maa fa nekk loolu yàlla dogal na ba àjjuma avant màggal rek parce que dañu 22 oto yoo xam ni fi mu ne war nañu génn jox seen i borom ma am lu ma jaaxal ci BRT. parce que Macky Sall tey mooy président de la République bi aftu amee problème ba ñu nag banque mondiale ñu dem ba daanaka projet bi yàqu na booba Macky sàll mooy premier ministre mu xool projet bi mooy 87 milliards la woon mobilité urbaine PAMI yéen ñëpp dégg ngeen loolu. Mm-hmm. mu ni ah comme nag banque mondiale dafa bëgg a daw rax ndax affaire bi dafa yàgg. te moom mooy premier ministre mu def conseil interministériel woolu ñun acteurs yi mu wax ne lan mooy problème boobu mu Seck mooy ministre de transport transport oui. mu ni nañ jël xaalis réew bi démarré ko pour banque mondiale man euh, projet bi a yàqu loolu la Macky def moom en tant que chef de gouvernement mm. ci la ñu defee pose première pierre deux voies libertés si mooy la avenue euh, la Entrenage mm-hmm. tegaat beneen pose première pierre bi mu Macky Sall euh, rond point sur Noche mm-hmm. pont sur Noche boobu ak rond-point euh, Rocade Fann Bel Air kon yëf yi banque mondiale financé cinq cent cinq bis huit milliards la woon ñu dugal mu nekk crédit de pour ñu ni Sénégal oto yi waratuñu màggat mais ni ñu tërale woon projet bi quatre ans rek la waroon a am luy car rapide jóge Dakar ñu ni bu ñu déparé CI loo tax ñu groupé ñun mu ay GIE yoo xam ne ñoo composé AFTU parce que fa la transporteur yëpp di daje ñu bokk benn GIE GIE boobu moom la ñuy attribué ligne bi président bi ñëw signé convention ligne boobu avec CETUD loolu defe naa ne organisation bu baax la. Mm-hmm. ñuy dem ci loolu ba affaire yi démarré ñu ñu leen arrêté ñun da ngeen dañuy def transport rapide mm-hmm. pour yóbbu usagers yi normal. Mm-hmm. dagg-daggee moo amoon amatul bus bi amatul porte arrière pour nit yi di lang ay porte latérale la loolu la cahier de bi génne concessionnaire bi def nañ appel d'offre international am na concessionnaire bu ko gagné muy Tata respecté na cahier de bi ñun respecté nañu engagement yi ñu jël day am receveur dootul am apparenté supprimer nañ ko ci réforme bi mm-hmm. dootul def fu leen neex jaar dootuñu jox chauffeur bi oto bi mu di di ko laaj versement. kon sa wër ba versement ba waratu ko. waratul daxe waratul xëccoo. salaire la yam comme tout le monde. mais bu ma maa ngi naan père sax nga baal ma Modou Mboub su ma déggee ngay expliquer kon yéen euh, ni ngay wax ci receveur beeg kay de charge bi da ngeen bëggoon ñu continuer lang wala. déedéet. Ah, ah, dañ ci d' accord état moo wax loolu. Ah, te xaalis milliards yooyu suñu état moo garanti. ñun ñu jël 505 bi si banque mondiale financé woon muy 8 milliards ñu fay ko à 100 pour cent. 505 bi si mooy milliards. moo moo moo moo nekkoon 8 milliards mooy tata yu njëkk yi. bi ñu ko fayee ba mat wax dëgg yàlla gouvernement bi daal nuy gërëm daal ni vraiment dugal nañu xaalis ci transport bi garanti leen amuñu ci gàccee wax dëgg yàlla secteur transport bi dox na.

da ngeen ma laaj da ngeen may bañ su ma paree génn laaj li ngeen xamul mais parce que li ngeen may laaj bu dafa yàgg du ngeen ma woo kuy campagne électorale eh, ah, ah, pas campagne ah, électorale amu bu garaaw la léegi léegi xam nañ ni secteur bu garaaw la ñu ko waxee may ñu tuuti rek waaw léegi la déggu rek ma tuuti dugal ci loolu déglul déglul état dañu dugal ci loolu ñu dugg waaw waaw waaw état lañ ci dugal waaw ñu dem xam nga ni état moom demal ñëw la waaw <laughs> biir sim day dem beneen ñëw man daal dem beneen ñëw. waaw léegi bu fekkee fonctionnaire bu ñëw. ak sa programme boo xam ni sa programme bu bopp la. mais du ñu arrangé. justement <laughs> non bu indi embouteillage bay ma mm-hmm. tuuti. Mm-hmm. dafay indi embouteillage. Mm. que 18 kilomètres yi fu muy jaar sànq yi 300 lay te kenn ku ne gis nga embouteillage bi ni mu mel. Mm-hmm. ne dañu dem ba perte ci manque à gagner. Mm-hmm. mënatuñu dem mënatuñu dikk. Mm-hmm. parce que ku doon def 2006. sept rotation ci sa ligne. léegi ngay dem bay def trois rotation wala deux. pertement ñëw na. Ah. léegi su ñu nee BRT terre bi pareegul. indi na embouteillage ñu ni nañ ko muñ. parce que boobu bu paree dana baax ci ñun mais BRT bu ñëwee dañ koy protéger fa ñu jaar ah lu mat 500 euh, euh, mètres dara du ko jige di éliminer suñuy lii di ci biir travaux yi lii ji dañuy daal di commencé éliminer wu ñu ne ñuy dund embouteillage te ñu lépp xaalis boo xam ne état moo ko garanti garanti nañu vingt milliards ba da war a wàcce huit cent oto léegi ñu ñu lépp boo liggéey duñu mën a fay. bu fay dañuy nangu sa oto ñu bu ko def ñu cartouché duñ ko nangu. c' est un vrai problème. problème la ñu am. c' est un vrai problème. alors Bouba. <laughs> Bouba comme yaa njëkk voilà yaa njëkk kar yaa njëkk kar. am nga client boo doon jàkkale de. ba pare Bouba Bouba nu may nappee nii sax man de sama yaay xamul Bouba sax mu sonn. xool ko mi ngi lay xool ci bët. waaw mi ngi lay xool ci bët. mais xam nga. <laughs> mais nappaloo na la. kon nijaay bi nappaloo ko. non nappoo ko mais maa ngi doon gis nag boobu. bu ma ñaawul wax. bu ma tàmm na neen tey. non tey waaw tey moom franchement. sëñ Modou Mbow. yaa ngi maa ngi doog a gis. mais def nga ma yow. saa waay samp nul bañ a bëri. waaye mais mais tax mais bu fi gëj waaye bu fi gëj. yàlla xam na ne bëreegum. waaw mais bu fekkee joxaat yow waaw moom nga sax. ah ko dégg xam ne Kajoor la man waa Kajoor la. Kajoor waxoon naa man dëkk Kajoor Ndande. Ndande. waaw jegewul yooyu. kii waa dëkk ak sori. xombal ba wàll. Ah, ah, ah, waaw mais der <laughs> der nga jokkee. <laughs> fuur yi non non man fuur yi non mbubb moo may napp nii. loolu moom mooy ba nga fi wax fi. mbubb ma la dañuy waxtaan rek. waaw. man man mii sax jox pour une fois. naan naa la nga jël kaddu gi. ma ma après ma ñëw booba du jël kaddu ci ci ci ci thème bi non booba du jël kaddu. non man man der li ma ci xalaat. waaw effectivement keroog euh, dalal nañ ci madame Kébé xaw ma madame. madame Kébé la effectivement. Euh, ci ñu wax ci BRT mooy jour bi ñu koy lancé. Mhm. mais encore une fois Sénégal euh, dama am contenté trop di déglu sañ Mbouf muy expliquer parce que ñi war a bokk. Mhm. il faut que ñu éviter di leen beddi. waaw mhm. euh, foog ñu boole leen ci euh, li nga xamante ni dañ koy def et c'est extrêmement important. te bedd bi dafa xaw bari ki fi jóge léegi nee na ordre ordre médecin yi. Sénégal boolewuñ leen ci bu ñuy élaborer politique sanitaire. c'est extraordinaire. donc ñii tamit nga xamante dañu xam secteur bi di ci dund am ñu ñu ciy dundal. Hmm. la moindre des choses mooy booy ñëw nga boole leen ci. Hmm. leneen lii nga xamante ni bëggoon naa ko posé moo tax dama foogoon ne sax tey dañuy am ku jóge ci ñoom DER. dama foogoon ne tey dañu pour ñu mën a répondre suñuy question par rapport ak mode de financement bi. Hmm. intérêt banque mondiale ci li mu ci def. fonds vert climat. ak yaakaar naa banque d' investissement européen quelque chose comme yaa ma yaa yaa ma gën a xam léeg-léeg gars yi bu ñu. bu ñu sawarul ci communiquer wala seen temps de communication. bu bu bu rombee question yi ñu amoon comme lancé nañ ba pare posé nañ première pierre am nañ li ñu bëggoon mooy lan ban intérêt la ci banque mondiale am à ce niveau beneen bi. Pierre bu ñu amee euh, l'attirement ne seen chargé de communication. nga dugalal ma ko mooy mooy ren dafa am lu ñu jooy ba sonn. Charles mooy par rapport au service de la dette ne dañuy lebat 300 milliards. te ren service de la dette bi est-ce que waxuñu ne ñaata 900 milliards. Mm-hmm. donc dafay yokk déwén. léegi su yokkoo te ñu wax ne dañu nekk ci tension de trésorerie tu vois un peu ce que ça fait li ñuy fay déwén dafay dafay gën a yokk te FMI ak Banque mondiale moo tax keroog dama dégg benn jëwriñ ci euh, ministre yi mu ne FMI ak Banque mondiale ce sont les meilleurs arbitres de ce que nous faisons honnêtement bi ma déggee loolu j'ai peur parce que FMI ak Banque mondiale bu ñu la téye nii. du ñu la bàyyi mais gis nga boo demee di leb feneen mais jamono yële ci ginnaaw dégguñu fi FMI muy alerté Sénégal par rapport ak dette bi mais bu fekkee ne ñoom ñoo lay lebal amul problème ñu wax dara parce que ñoom c'est une banque encore une fois ay intérêt lay wër te bu fekkee ne dañu keroog seen politique tarifaire bi lan la ñu wax ñu ne c'est 300 francs politique tarifaire 600 francs aller retour ñu ne sur 10 ans la concession bi sur 10 ans mais ñoom bailleurs yi ci dugg nii kenn ku ci nekk doublé nga say sa sa sa sa profit sa bénéfice duble nga ko. leneen li mooy le projet en tant que mm. li ñu doon jooy ci TER bi pour man loolu la ñu amaat. TER bi dañu wax ne ci PSE 1 bi phase bu njëkk bi dañu wax ne c'était comme un cheveu dans la soupe kenn xaaru ko ci woon waaye dafa mel ni BRT bi tamit loolu la ñu tàmbaliwaat dafa mel ni c'est comme un cheveu dans la soupe mm. ndax est-ce que xaaroon nañ ko ci beneen bi mooy le projet bi li ñu ci doon jooy ci TER bi mooy transfert de technologie transfert de compétence chinois yi ñoo yées ci côté boobu. Mm-hmm. ñoom seen subvention dañ koy conditionné à l'extrême. Mm-hmm. fi mu ne nii musée des civilisations noires bi nga xam def nañ ko wala soit grand théâtre bi lampe bu fa yàqoo da ngay dem importer ji ko ñoom ñoo koy wuti seen dëkk iddi ko. Mm-hmm. dafa nekk ci close yi dafa nekk ci close yi. tey jii ñan ñooy bus yi ñan ñoo koy defar Chine. wala BRT bi fan la ñuy monter bus yi. bitim réew. fan lañ koy monter bitim réew. Hmm. c'est-à-dire que bu doon tey jii indi nañ usine bi Sénégal. Hmm. teg ko fi def transfer de technologie monter ko fi mais sëriñ bi. usine am na bi trans. seen biis. waaw looloo tax ñu teg ko. exactement moo tax. amul benn biis. moo tax a laaj moo tax moo tax aussi monté amul. sëñ boobu moo tax aussi il faut que ñu interroger wu la l' de seen bus. Mhm. seen bus lan lay devenir. Mhm. parce que ñooñu tey dañu contracté à hauteur de vingt milliards. Mhm. avec une banque de la place. mais il faut que ñu poser question yooyu yëpp mooy di mu wax léegi et est important mënoo ne damay toj ndaa am ndaa toj ndaa bëgg a bëri ndaa. yaa ngi dégg donc il faut ñu xool dégâts collectifs moo tax ma ne ñii ci war a bokk buñ leen beddi et ñu xool kenn ku ci nekk lee bailleurs la ban intérêt nga ci am immédiat ba tax nga dugg ci à ce niveau là leneen li mooy danga ne danga bëgg a décongestionner mais justement da ngay congestionner parce que bu fekkee ne da nga ne BRT da koy wutal mooy bus boo xamante ni day daw ci xàllu boppam mm-hmm. mais ñun suñu planification baaxul ci xàll yi bu dee trois voies nga am nga ne léegi damay supprimer deux yi mu des benn mais benn boobu fa la ñëpp di daje finalement danga nga gën a créer problème. Mm-hmm. loolu loolu benn aspect la. boo xamante ni c'est extrêmement important mais encore une fois je pense que Dakar dañ koy servir yenn saa yi te du ñu régler équation yi on les dé on déplace le problème. 0,3 pour cent. du territoire national. Mm-hmm. ñu concentré ci 25 pour cent de la population sénégalaise. mais dañu war a euh, pourquoi Dakar refuse du monde lu tax ku nekk ñëw Dakar li tax ñëpp bëgg a ñëw Dakar. loolu mooy la véritable question aujourd'hui te loolu décentralisation rek moo ko mën a régler waaye Dakar aéroport Dakar Dantec Dakar principal Dakar les tribunaux ku nekk am soxla Dakar ñëpp bëgg a ñëw Dakar. Mhm. le problème tu le règles pas tu le déplaces. Mhm. des territoires viables et compétitifs porteurs de développement durable loolu la acte trois de la décentralisation wax mais aujourd'hui depuis 2013. ban territoire yi yéen da ngeen di tukki moi ci ah, man ci ci kaw gi laa jóge ban viabilité ak ban compétitivité moo am ci sunu dëkk yi ak dëkk-dëkkaan yi ba war a tax nit ñi war a faa toog évaluons et arbitrons der alors Pape Djibril yaa ngi doon wax euh, amoon nga yaakaar euh, euh, waa waa ministère ñëw Latir maane moom moo yor seen wàllu jokko mi ngi ci ligne bi Latir ñi ngi lay nuyu Latir Mané bu dee yaa ngi may dégg allo Latir yaa ngi may dégg. Aïcha nee na mi ngi may dégg bu baax kon Pierre yow yaa may yokkal retour fii ci plateau bi euh, Pape Djibril li nga ko doon waxee parmi les interrogations suscitées war nga ko dégg yaa les appréhensions de Modou Mboup bokk aftu leboon euh, banque yi seen oto yi ñu nar a wàññi seen lignes yi ñu neen naka lañu ñu nar a def fu ñu jëm waaye it mode de financement bi muy question yu bëri yoo xam ni soulevé wu na soo ñu ko mënee tënkal rek ci vision BRT bi. waaw def lu mu xebalul di nuyu itam ñu ci plateau bi uh, su ma sañoon nag damay toog ci damay toog ci plateau bi jàkkaarloo ñoom comme ni ko waa comme ni ko émission bi tuddee jàkkaarloo lii leen wax ñuy dégg wante bon yàlla daf ne instant nekkuma Dakar moo tax mën ma teew damay toog damay tontu rek damay njëkk tontu Modou Mbow mi toog hmm. ba koy déglu. Ah, mi ngi lay dégg Modou Mboup mi ngi lay dégg. waaw waaw boo boo dégg boo dégg argument mhm. moom wax na ne remarqué nañ ne dëkk bi congestion Dakar euh, beneen journaliste bi wax na ko sànq Dakar presqu'île la cinq cent cinquante kilomètres kilomètres carrés trois pour cent du territoire national vingt cinq pour cent de la population du pays deux cent deux deux virgule trois milliards trois millions virgule sept millions d'habitants ñu am problème congestion mais état état lu ñuy xaar ci moom du ay du ay du ay xalaat rek état la ñuy xaar ci moom muy jëf xam nañ ne bu ñu toogee bu ñu jëfulee fii ak deux mille deux mille quarante Dakar sept millions la ñuy doon lu ñu xaar nag ba affaire yi di këtt ni jonn ñu ne dañuy réagir président si xalaat si vision dafa ne ñu ut ay solution par rapport à la congestion moo tax ñu indi li ñuy wax BRT bi li ñuy wax TER bi bu ñuy wax ne bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy def dara dañuy war di boole mais ñoom boole nañ leen. moom ci waxam wax ne wax na ne ne bi ñuy bi ñuy organiser bu bu bu bu bay waxtaan ak ñoom bokkoon na si ñu doon wax ne moom BRT bi arrangé wu ko parce que moom. boppam rek lay xalaat xalaatul sénégalais yi sénégalais yi nag dañu fal président mhm. jox pour mu liggéey pour mu régler seen problème mhm. problème bi nag mooy fi mel ni dëkk bi xat na Dakar kenn mënu ko yokk lu ñu mën mooy ut des transports mode de transport de masse d' accord Latir dégg nañ na donc pour cas euh, Modou Mbuub bi nga ni c' un intérêt euh, bon ci nañ ko comprendre particulier par rapport a l' général euh, ci préoccupation mais beneen laaj bi tamit Pape Djibril wax nee na mode de financement bi si mun nga ñu ko leeralaatal très rapidement 300 milliards yi nu mu demee. waaw bu bu 300 milliards yi. bu bu bu bu bu bu bi dafa maram Kébé ñëwee ñëwoon waxoon na ko. Mm-hmm. yi. euh, à hauteur de 60% le la lañu lañu la ñuy financé projet bi mhm. baye principal bi banque mondiale la banque européenne d'investissement ba pare nag ñi xaar fonds vert mu mu mu ci wàllam mhm. mais li ci ëpp solo mooy euh, état dina indi secteur privé Sénégal secteur privé bi loolu dañ koy wax. 15 hmm. pour cent yi secteur privé bi nañ ko réserver. Hmm. ñoom li li mu doon wax noonu li Modou Mbuub di wax ne dañu euh, dañ dañ ñoom ñoo war a yàqale. xam nga euh, DER Sénégal la moo ko yàq mooy dafa bëri ñoo xam ne dañuy wax loo xam ne xamuñu ci dara parce que bu ñu dénkee nit ay ay ay ay ay experts leen dénk leen benn secteur dañ xaar ci ñoom ñu liggéey mais dañu xalaat saytu ko. seetaan seetaatal ko ba xam ne bu ñu seetaanee ñoom ñi ngi wax ne euh, transport baa ngi dox kenn war dafa mel ni comme rek transport baa ngi dox waruñu dox dara. Mhm. mais transport bi mi ngi dox mais congestion bi amaguñu solution. Mhm. pôle urbain yi pôle pôle urbain de développement yi président lancé na ko mais yembagul mais ceeb mhm. boobu yooyu yëpp di yem il faut que trouver solution. d' accord Latir Latir Pierre da Silva bu dee carte BRT bi bi mu la yónnee pare na. Latir leneen li ñuy laaj mooy tracé bi gis nañ ni jaar na fu bëri xëy na mais demul port te pourtant port ku xam-xam ni ñu bëri ñuy xëy jóge banlieue foofu la ñuy dem lu tax boolewuñ ko ci ci tracé bi. loolu tam di indi waxu privé bi. xam privé bi taximaan yi ñoo ñoo ñoom tamit ñoom ñoom ñoom euh, waa Dakar Dem Dikk. Mm-hmm. waa AFTU mais dañu bëgg dañu dañu bëgg nañ ñoom tamit liggéey ci ci ci ci ci projet bokk nañ ci projet bi. ok boo yóbbee ba port boo yóbbee nit yi ba port ñoom fan la ñuy fan fan la ñuy euh, lan la ñuy mm-hmm. liggéey ñoom. bëggul Dakar Dem Dikk dootu liggéey AFTU dootu liggéey taximaan yi dootu ñu liggéey dañuy bëgg bu ñu allez Latir Latir euh, defe naa defe naa ci lu bëri lu ñu bëggoon euh, nga tontu ñu indi nga ci leeral ñu lay gërëm di la sant sori nga dakaar mais def nga effort dugg ci émission bi en direct ñu ngi la ciy gërëm di la sant mais Modou dafa mel ni d'accord ak li wax nee nga dañ leen tere côté port boobu may laaj. côté port dabaane nañ fa ligne dañu ni foofu Sotrac Dakar dem dikk. lañ koy bàyyi. ñun du ñu dem Dantec du ñu dem place de dépannage pourtant ay kalaadoo nga fay daw. te kalaandoo warul def transport ñun foofu la ñu jooytu mais néewuñu dañu bañ BRT dañu leen ñun mission d'accompagnement yi ngeen ñu waxoon ci suñu projet bi ñu koy taxawal defuñu ko bu ko deful ba pare bëgg a indiwaat BRT embouteillage di gën a yokku loolu dafay metti ci nun mm-hmm. te nun dañ leen wax ni leen lépp loo xam ne kalandoo la mais mënuñu ñu cent tata bu subaa trois cent kalandoo ñëw ñëw ci réseau bi jël suñuy lii ay minicar yi doon daw ci eh, ci interurbain bi léegi rek gis ngeen leen ñu ngi récupéré suñuy suñuy suñuy ligne su mm. ñu concurrencé ñu ni njaga jaay ya dëkk Ziguinchor ya dëkk Matam ñooñu ñëpp ñu daw ci àll bi léegi ñu ngi ñëw bokk ak ñun euh, euh, dëkk bi te ñun ñu yore bor di ko fay ñu ne ñu da ngeen di embaucher ay chauffeur da ngeen di embaucher ay receveur da ngeen di fay ay régulateur da ngeen di fay ay ay contrôleur hmm. da ngeen di fay ay superviseur de ligne oto bi am charge di fay sept cent et quelques mille traite te ñoom ñoo eh, xaalisu état la ndax xaalisu réew mi la état du garanti hmm. nu war koo fay kon bu beertee day ñëw di dolli embouteillage ñu ak ca ba pare ñu ne woon ligne de rabattement yi ñu dem ndem ni bi bu fekkente ni ñu ngi def nag cérémonie bi hmm. dañoo invité maa nga fa jox ñu présidentiel yëpp ku ne nga am carte ñëw. président bi ñëw ñun ñëpp ñu ñëw toog ci kaw tribune bi bi euh, euh, directeur u cité bii suñu directeur li ñu tiital moom la parce que def na discours am ba mu jeex tuddul afti ñu ni waaw mais kii dañu woon li jarabaat bàyyi ñun ak Dakar dem dikk la mais def na discours am en tant que day réew bi di président de la république Macky Sall ñëw toog muy def discours am ci tuddul afti est-ce que yéen ci seen. mais ñu tiital. est-ce que am ngeen protocole. est-ce que moo tax tey ma ni la. waxul sama kàddu laa waxoon. waaw li mu laaj am na solo ndax am ngeen protocole. bu dama ne ndax waxtaan yi jiitu loolu. parce que mhm. moom dafa wax ne. boole nañ leen ci waxtaan yi ngeen doon def ndax ci biir waxtaan yooyu moom waxoon ngeen ko seen i mbébét moom mu wax leen ay garantie yoo xamante ni am na fu ngeen ko tënk mhm. gis nga bi ñu ñëwee proposé nañu berte boobu sax directeur bi nekk beneen directeur moo fi nekkoon directeur sortant bi Thiam mu ñëw proposé ni ko ne ah alhamdulilah rabbil alamin man ne dama yaakaar ne su ma ñëwee ngeen bañ ñu ni ko non ñun du ñu bañ suñu réew lu koy jëmee kanam ndax ay sénégalais lañu ay opérateurs économiques lañu kon ay trois 300 milliards bu dee dugg suñu réew du rek ay car BRT lay jënd dina am leneen lu muy defar loo xam ne amal la réew mi njëriñ. Mm-hmm. ñu ni ñun sax bu ngeen lu ko joxee man nan ko yor comme ni ngeen lu joxee afta bi. Mm-hmm. ñu ni noo amu leen xam boobu. <laughs> Charles BRTV loolu moom saaga la. ñu nangu. Mhm. ñu ni lii ci rabattement yi lañ leen di jox ñu nangu. waaw mais bi bi ñu ba ba ba ba ba ba. Euh, bi ngeen président de la république taxaw tënk ngeen ko. ñu invité ñu. li ngeen waxtaanee ndax dama ne. ñoom toujours ñoo ngi réunion ñoom chaque mercredi siti siti suñu kër la. waaw mais xam toujours ñoo non c'est spécial pour transport urbain. suñu kër la du ñu ñoo ngi waxtaane mais li ñuy wax na nekk dëgg. Mm. kon ñun foofu la ñuy waxee. parce que kenn du sa kër nag. ñu indi fa benn surga mu war laa accompagner parce que nee naa leen yéen démb ngeen ñëw. Mhm. suba ngeen di dem. mais tontu woo. Mhm. ndax yéen a ngi koy tënk ngeen li ngeen wax. li ñuy wax yëpp dañ koy tënk. dañ koy tënk kon. Euh, euh, dañ koy tënk Charles Faye mais. bu ñëwee ba ci biir Charles vas-y respect Modou pour léegi comprendre nañ Modou mm. Modou comprendre nañ Charles ay xam nga xam nga d'accord nañu mu daw de. Mm. xam nga DER mais bu ñu gaañ. Mm. loolu rek la ñuy bañ bu mu ñu gaañ. der man xamatuma suñu dëkk lu muy doxee. gis nga Pape Djibril am na lu mu wax par rapport xam nga tey der àdduna xaalis dafa bëri c'est plus il est plus. celui qui contrôle ta dette te contrôle et le monde aujourd'hui xeex bi mooy contrôler la dette. bu la joxe xaalis. boo koy fay si say prochaines ressources nga koy fay on a de quoi payer parce que pétrole la ngi ñëw donc déjà nos prochaines ressources fa la ñuy tëb di fay kooku foog ñu xam ko muy sëñ bi nee na fi 8 milliards 500 bus kon bus yi c'est 16 milliards 16 millions par bus 16 millions par bus boo defee 1000 bus à 8 millions muy 8 milliards boo divisé par 2 500 bus donc ça te fait 16 millions par bus du dëgg 5 millions par bus 2005 ba tey ay waay c'est amorti ou pas 2005 aujourd'hui c'est 14 ans hein? les bus sont amortis donc dañu waroon teg deuxième wala troisième génération de bus loolu tax ma ne dama comprendre non foofu pour nga comprendre. non du ma ko non bii si ñi ngi ñëw non. non dama dama ne 3000 3000 Ndiaga Ndiaye ak car rapide. non je dis moom la war a renouveler. non je mais première phase bi moo nekkoon 505 bis. gis nga yooyu fi ne defal nañ leen programme. ak 400 kilos yi ci toppoon. dama ne pour renouveler waat leen. parce que ñaanal gën a mais durée d'utilisation prévue dafa am am. durée d'utilisation prévue. waaw mhm. ça fait 15 ans ça fait mais mais non mais lu ma lu ma li Mamadou waxul. Hmm. moom mooy xam nga xam nga dañu dañu yàgg kaas. Hmm. bu ñu xoolee car rapide ñu ne ñi ngi fi depuis ñu juddu ba léegi ñi ngi fi. Hmm. ñoom aussi il faut ñu. mais c'est ça que tu effectivement bus bi ngeen am. def na 15 ans voilà def na 15 ans. parce amorti. que normalement ak suñu état wu route yi ak anarchie bi am ci transport. bus bu fi dal bu fi daw quinze ans. nekkatoo en en mesure. la ah, ah, la pour non la Bouba non non. loolu tax ma ne non Bouba loolu tax ma ne la. non Bouba loolu tax ma ne nous avons malheureusement des comportements de rentiers looloo tax état xam loolu état di leen teg loo mhm. xamante ni parce que man gisuma homme d'affaires boo xamante ni da dugal say milliards gisuma ministre bu lay sonal ah yow yaay doxloo dëkk bi ministre bi à la limite euh, il n'est pas là tu le fais partir le président de la république à la limite dans tous les pays du monde ça marche comme ça dans les pays boo xamante ne nit ñi ñooy dugal xaalis bi mais da am président boo bëgg ak boo bëgg parce que loolu mooy seen njëriñ président cest le paradigme dans ce pays il faut que nous rebrander ce le BRT il est mais Bouba nous sommes 4 millions de Sénégalais il y a 4000 voitures donc une voiture pour 10 personnes. c'est aussi simple que ça on peut plus continuer problème de santé publique lay posé avec le, le de l'effet de serre day dégager quand même le gaz effet de serre il faut qu'on régularise maintenant régularisation boo comment se fait-il que dans un pays territoire boo xamante ne c'est 0,3 de la superficie nationale

tu viens, tu mets, tu mets le BRT.

en fait bëgguma mu nekk loo xam ne dañu toog di ko xaar. non non loolu oh, il nous a dit le 30 bu le 30 di ñëwul on on passe à autre chose. on passe à autre chose mais je voulais dire <laughs> c'est-à-dire tey ce qu'il nous faut éviter c'est des investissements en vain. d'ailleurs on a fait Ila Touba il y a combien de passagers par jour.

je pense que moi c'est ça mon grand problème mooy que ñu ngi dugal xaalis bu bëri di amel det di engagé ay génération future di lekk si loo xamante ne ñëwagul euh, mais xam nga sànq dañ fi amoon dañ fi amoon benn waxtaan bu am solo ñu ne bon BRT ça va coûter combien 300 milliards 300 milliards non non non pas pour defar ko mais pour nit bi di ak pour jël BRT bi dem en ville liggéey. Mm-hmm. le prix waaw le prix. xam nga ñoom ñu ngi wax que ni euh, am na loo doon terme bu mu doon wax. mooy rabattement les lignes de rabattement waaw rabattement loolu yëpp ay dépense la man ma par exemple nit bi nga xam ne dafay gagné cent mille francs hmm. wax fa dëgg yàlla tey jii nii mi ngi dépassé ci cent mille yi vingt cinq mille francs ci transport bu ko yóbbu pendant le mois mu yeewu suba mu am BRT am bus de rabattement bi mais sa dépense bi muy dépense ci euh, transport bi egg 60 non ban 35 egg 60 ci à ce à ce rythme là c'est 75 kooku moom la ko Sénégal yi xam waaw non moom waaw mais non moom laa yoo xam nga xam nga dafa am lu am solo dafa am lu am solo noonu dama ne li ngay bu fekkee ni danga bëgg a avancer il faut nga avancer sur li ngay am pour mu mën la permettre ngay ngay ngay ngay mën a dépenser yenn xaalis aujourd'hui est-ce que on dit au Sénégalais par exemple bés bu dans trois ans bu BRT bi pare ñaata nga mën a soxla pour mën a dugg BRT bi dem liggéey gagner du temps est-ce que loolu dans trois ans sa salaire dina la ko may si bu la ko sa sa sa salaire mayul en fait le problème il reste entier oui. les gens seront confrontés à des ñii tamit malade les transporteurs là ay nit ñu baax la ñu ñu ngi def ay liggéey mais c'est de gros crieurs publics parce que des fois oui fois boo xoolee <laughs> non si parce que quand même man man am naa ay rakku seku xam nga luy seku hmm? xam nga lu seku seku mooy ñooñ di ci kaa ci kaaf bi seku lañ leen di woowe les receveurs mhm. ils ne sont même pas respectés seku lañ leen di woowe et la plupart d'entre eux sont licenciés arbitrairement par ñoom ñi oui c'est-à-dire il état mooy li gën a yomb. kon ñoom du ñoom contrat. non c'est la plupart parce que noonu la. noonu la am naa jarbaat boo xamante ne seku la mooy receveur la. mais heureusement paa bi ko bu baax la bu bëri yërmande bu ba da koy dàq baalaat ko <laughs> ah, ah, non. non da koy dàq baalaat ko non je veux. li ngay wax da ma intéressé. non xam na li ma koy wax bu baax a baax. cest à on descend le débat bi na gën a wàcc. mais amuñu contrat donc. non ñëpp amuñu contrat. Hmm. li may wax moom xam na ko. oui il beneen affaire bi ci topp. mais transport aussi c'est du confort. je suis mais da ngay da ngay dugg dugg ci benn oto vitre bi ngaan. ngaan ñoom nga teg sa loxo mu fàtti ko presque ñoom ñëpp presque ñu si gën a bëri. waaw ba pare il faut dañuy surchargé. dañuy surchargé amul limitation. je suis bi ngeen di discuter ak Abdoulaye Wade. affaire affaire yooyu tere woon nañ ko mais ba léegi tata yi dafa am marche pied. Euh, nit ñi dañ ciy taxaw. dañ ciy taxaw dañ ciy taxaw dafay fees bay weng. bay weng. te accident yi ëpp jamono jii nii bëri na ci tata yi. donc en fait. et puis le renouvellement du parc de seen parc yi doo leen ko def c'est-à-dire ce qui vous préoccupe c'est chercher c'est chercher de l'argent c'est la maille rek et puis qu'est-ce qui vous empêche d'aller créer lan moo leen tere pendant tout ce temps ngeen di liggéey yéen ak ñoom xam nga ku dem ba finalement ku jël benn oto bu weex sax ñu tuddee ko Njaga Njaay moom mooy am nga appropriation locale mooy tout mooy hmm. tuddee nañ la affaire bi dem nañ ba jox ko identité finalement lan mooy seen projet xamul. vous n'avez pas de projet. pas de projet c'est-à-dire amu leen benn projet. c'est lan mooy l'État le lan mooy seen projet état bi nag. xam na ci loolu lay sukkandiku pour dóor leen. mais hmm. c'est aussi simple que ça. mais beneen affaire bu may wax man pour man boo xoolee BRT. waaxi naan Nimzat lañ leen di defalee n'est-ce pas kii bi. Euh, defe naa garage bi foofu lay nekk. non non non mu ngi ci sapeur kii bi. mu ngi préfecture bi am na mais am na ay am na pour le BRT am na am na ay quelques hectares yu ñu leen jox xaw ma. fële pour fi ñuy defee maintenance yi. oui je waaw maintenance yi ñu ngi ko def waxi naan boo xoolee ñu ngi ko fa def derrière ça il y a fii fii bi di jaar il y a des impactés. Mm-hmm. ces impacts-là est-ce que bàyyi est-ce que est-ce que est-ce que on les prend en compte et mooy lan mooy la priorité. mais Malal xam nga lu grave foofu dama lay apporter damay rajouter ci li ngay wax. banque mondiale buy financer projet. Hmm. impense bu impacté amee moom du ko jël en charge. déedéet danaan l'état l'état du Sénégal. yow jël ko en charge. Mm-hmm. donc et dans le cas du BRT nee nañ yooyu ce sera pro lu projet bi dem. fu muy ah. impacté. progressivement progressivement. <laughs> Et c'est là où se trouve le danger parce que finalement c'est comme si on n'avait pas évalué mm-hmm. en amont ce que cela devrait te problème bi dëggantaan. l'état l'état est réputé mauvais père. problème bi dëggantaan mooy pour man le mouvement de Guédiawaye vers Dakar yooyu war na xewi doomu Guédiawaye ay lu ñuy defi Dakar. jaay ceeb lañ fay defi. ambulant lañ fay defi. pour notre projet jaay yére lañ fay defi. c'est-à-dire ak jaay ndox mu sedd ak glace. <laughs> c'est-à-dire il faut pour moi. il faut mouvement bi pour man. décentralisation. oui. Ouais. politique de décentralisation il faut l'activité baax ngeen yéen a ngi yàpp askan wi maire yi yenu euh, euh, euh, paanu jën yeeg pañe yeeg yëpp yéen leen di encaisser am naa question mais derrière tout ça aussi yéen liggéeyu leen pour renouveler le parc liggéeyu leen effectivement pour améliorer les conditions des travailleurs. dans votre secteur aussi. Papis wax ci BRT bi. man dama ci sori trop mais dafa am yoo xamante ne euh, boo ko dégloo boo ko dégg bu fekkee ne c'est des ça c'est avéré ça pose problème je ne pense pas que état bu Sénégal bu toll nii état di engager un projet bu toll nii. te amul au préalable des études qui ont été faites à la suite de quoi ñu am financement pour def man bu fekkee loolu dafa am man ça me pose problème et xel mënu ko nangu en d'autres termes chiffre bi nga xamante ni moom mooy porter le projet mais day nekk du début jusqu'à la fin mm -hmm. c'est que tous les paramètres qui entrent en jeu dans le projet dañ koy jël en charge ñu koy fayee modalité yeeg Ça, c'est un autre problème. Mais il y a un budget préalable qui doit finaliser ce, projet. Donc, vous faites l'IPAP soulevé comme, comme préoccupation impacté, mm. ça c'est une catastrophe. Mm. Mais moi, je ne veux pas y croire parce que c'est invraisemblable, c'est pas, c'est pas dans mm. le normal des choses, c'est pas, c'est pas possible. Mm. Ben, moi, il faut pas refuser le développement. Il ne faut pas refuser le développement. Mm. di yeesal gën a moderne comment on, on appelle la chose pris mon temps avant-hier ma nekk ci benn taxi je lui ai posé directement la question parce que xam nga nit les acteurs ñi nekk ci benn affaire. Mm. ils sont essentiels. bien parce que ñoom si loolu la ñuy dund. Mm. yow dunduloo pour transport ñoom transport bu doxee dañuy dund bu bu bu sooxee day impacter justement sur sa le propre vie ma waa ji mais euh, inauguration baa ngi daw taxi ba ma ne ko mais grand loo xaar ci kii bi BRT bi. mais jantal sénégalais amunoo mais dara dañuy ñëw rajouter aussi quoi parce que quand Dakar Dem Dikk était revenu les gens dañoo xawoon ragal tiit mais oui concurrence bi mais mënu ma xool mënu ma grand client taxi bu mu sa changé le gars qui prend malal qui prend son son Ndiaga Ndiaye c'est vrai tu peux tu lui présentes le métro il prend son Ndiaga Ndiaye ce sont ses habitudes c'est ça qui est conforme à ses moyens c'est une réalité. Papis d'accord d'accord non taxi peut-être taxi. non mais tu peux ne pas être d'accord mais man mon avis dama ne taximan tous les gens qui font le transport ils ont leur avis li ñu wax man laa mën a jàpp bëgg mënuma ma wax en attendant may gis la suite l'État a proposé un projet on est en train de l'exécuter mais acteurs yi ngay laajte ñooy la noonu y' a aucun souci. mais mais am na am na dara am na dara laal loo xam ne moom. bu BRT amul woon. il faut pas ñu omettre constat bi ñun ñëpp ñu def. mooy que quand transport bi nii. Mhm. Ah, urbain bi c'est infernal. c'est infernal c'est-à-dire que euh, tey jii nii tey moom laay xam nga xam nga. Euh, sama sama sama mbokk mi. bi mu bi mu bi mu ñëwee moom. fi mu gën a euh, consacré argumentaire am moom mooy en fait en réalité investissement yi nga xam ne ñoom def nañ ko ah lépp xaalis. jox leen ay bés mais récupérer ngeen xaalis boobu. ba pare oui ñoo ngi fay. waaw leen pendant 15 ans. un bus de huit millions vous mettez quinze ans pour payer huit seize millions dégg déglu ngeen ma dëgg non kon wax ñu yóbbu ñu wax ñu dégg non non non non ça je peux pas y croire cinq cent cinq bus laa la wax waaw li doon daw urbain mi ngi nekk trois mille waaw et quelques waaw ñu war a renouveler deux mille cinq cent bus waaw loolu depuis maa nga man li wax la ne la ci ñeenti at la waroon diire waaw ci li état Sénégal digee woon ak ñun ak banque mondiale mhm. nga xam ne lépp luy car rapide ak njaga njaay dafiy jeex tey ci tey quatorze ans yi dañu waroon fekk ñuy renouveler. cinq cent cinq yi ñu jëkkoon a indi 2005. mais vous n'allez pas Mboup. ne pas. 2005 ak marque polo bi du benn. mais bu amoo tey lu leen di en six ans. non bu marque polo boo xam ne dawul démb 18 mboob mboob xool ma. mboob ñu changé ba léegi. mboob xool ma a xam nga ñan ñoo ko. mais 505 ñu ngi daw xam nga bii nga woon ni ñan ñoo ko. Modou est-ce ah. Sénégal yi ñoo ko financé à 20 milliards. waaw mais non non état garanti ko. mais mooy barka polo yi ngay gis. lii c'est pas amorti mais mais bokkul ak 613. waaw Modou Boub man dama dégg loo xam ne sax ne ñoom ñi ngay wax. bu ngeen def débat da ngeen di def. ñu di wax ba xam ba mu dugg seen bopp. waaw oui ma non non non li ngay. Modou moo dem 2005 Modou lan mooy seen responsabilité ci rapide yi daw ba léegi parce que man nee nañ ma rapide yu bëri. Hmm? au lieu ñu yóbbu ko kaas. Hmm? da ngeen di dem wëlbatiku non seulement donc ñu jox leen oto bu bees. Hmm? mais ngeen uti duplicata bu ñu dagg daggee carte grise bële ngeen utal duplicata bi nga xam ne normalement kaas la waroon dem waratul woon daw mi ngi ci banlieue bi di daw ça c'est l'administration waaw ça c'est autre ah, chose mais mais ah, attends il y a quelque chose mais mais Pape Pape Djibril su ma xamoon ne question boobu euh, Ablaye Der dugg. bi ah, may laaj la de. ci sama oto wax nag ma laaj. ci sama oto. man nee la maa nekk ci commission réforme bi lu ma wax day leer. ma génn sama oto léegi bu émission bi jeexee nañ dem sama oto ma génn la PV yi nga xam ni

oto bi day daw le matin. mais yéen ngeen wax A plan B. mais loolu fi ñu jógee. Ah, ak fi ñu yegsi da ngeen koo war di xool. waaw loolu nag d' accord nañ am nañ lu yàqu. ñu ne nañ corriger li yàqu. Mm. bañ nañ ba taxawal benn kuréel bu ñu tuddee captarance falal ko bureau conseil d'administration Ndiogou Malick Dieng moo moo moo ko jiite ñooy saytu lépp oto bu ñaaw boobu ngay wax. Mm. fi mu ne nii dañuy xëy bind la. nee na oto bi arrêté ligne bi en tant que doole woo ko pétrole woo ko doon daw ci ligne bi. kon ñun ñoo ngi avancé. non mais non Charles Charles on peut pas ah. parler on peut pas parler. ah non non parce que da nga dégluwul da nga déglu. non munoo toog ba. gis nga attends il va pas me laisser parler parce qu'il sait que je lui pose un problème. munoo dugg si oto boo xamante ne day xëy 6 heures du matin wàcc par exemple 20 heures quand tu descends tu as fait le chiffre d'affaires du jour tu multiplies par 365 jours tu me dis qu'au bout de 6 ans tu n'as pas amorti nga toog xool ko xanaa ñeneen nga koy wax mais man.

ma ñàkk oto bi boo bu fekkee dañ nag 6 mois yi impayé nga ci li ma li ma avancer nga ñàkk ko. Mm-hmm. léegi léegi 6 mois doo ko doon nekk nii. ah ngeen di perte oto ci boppam transport dafa am nu mu demee. waaw <laughs> non dañu bëgg xam rek. da ngay bénéficier tey su bëgg a perte. gisoo yéegul euh, <laughs> ñu tata bu daanu ci autoroute non may ma tudd rek gisu leen tata bu daanu ci bi non mi ngi lay baab non dama ne gisu leen ci autoroute xam-xam pourtant ma ngay fay traite ma ngay fay salaire de non loolu borom oto bi déglu rek uh-huh. chauffeur ba daw na wa ñaata lay fay xalagu salaire yi ñaata la assurance du ko fay uh-huh. moom dana defar oto bi dana ko yóbbu seen biis wala bu yóbbu ko Editec uh-huh. fay ci ay millions dal na ma dal na sama morom. bu weer dee du tee nga fay salaire yi du tee nga fay afti. waaye léegi question man non parce que. man de du ngeen xool loolu. non léegi ñaata million. ci fil léegi boo doon gagné oto bi weer bu dee. waaw mais non weer bu dee déglu rek weer bu dee nga gagné ci. oto bi am am sox nga ñàkk yow xam nga xam nga bi ñuul yi bi ñu defee départ wala ñoom transport ba tax ñu naan jaga jaay ñoom bi ñu dugalee étudiants yi jàng ba am seen seen maîtrise ñu jox leen lamoon social ay signaux de baisse je suis désolé ah, sa taxi mais c'est quoi le rapport dañoo calculer ba ñoo ko bi ko calcule ci biir doo je suis ah, désolé il fait sur un am na reportage boo xam ne dina leeral lu bëri mais avant loolu impensé euh, Pape Djibril euh, impensé totalement pris charge par le financement euh, de la Banque mondiale c'est plus de 12 milliards prévus et pris en donc dans la convention de financement conclue avec la Banque mondiale mondiale c'est le directeur du budget qui nous donne cet éclairage là quand même nee na nee na nee na impenses yi c'est totalement pris en charge donc euh, ak lettre d'ouverture boo xam ni mm. euh, bon yónnee na ma ko mais je te signale que les gens du TER là n'ont pas été encore payés les délocalisés là léegi Modou Mboup sa sa kaa xaaral euh, Pierre da Silva <laughs> indi reportage Pape Fara dina leeral lu <laughs> ay waxtu yu gudd lool ñu koy liggéey ci kaw tali bi seen nekkin nekk lu métti jàpp ne salaire bu ndaw ndaw lañ leen di fay ñii di chauffeur ak receveur yi liggéey ci bis aftu yi fi mu toll nii mer ba futt la ñu def. suñ problème mooy ñun amuñu fu ñu taxaw en plus nu ñu liggéeyee métti na trop xam nga da xëy 4 heures presque bala nga duggaat sa biir kër 22 heures 23 heures xam nga te fay ñu aussi lu ko jar oto yii bi muy wàcc. plus de 2004 ba léegi la oto yi wàcc fay nañ traite bi ñaari yoon yow sa salaire fi mu nekkoon fa la nekk ba léegi bougé wul xam nga loolu tamit dafa metti li ñu bëgg nag moo nekk ñu gëddaal leen naka noonu xoolaat seen contrat de travail yi. war nañu yokk suñu salaire war nañu defal embauchement du ñu verser IPRES après bu ñu jëlee retrait ñu war ñu far ñu mën ñu fay suñu kii ñu mën ñu mën ñu fay suñu retraite xam nga instant war nañu fay ancienneté loolu yëpp defuñu ko liggéey bi metti na trop si ñun. man mii di wax ak yow def naa fi 4 ans. contrat bi am na ñu am na def am na ñu deful mais ñi def ay dil la ci suuf. yooyu la liggéeykat nag daal di amal ab bëccëgub lëmm gaare seen i kaar kenn dawalul ñu ñàkk ci koppar yu bëri li ko waral nag mooy bërëb bii ñuy taxaw fii ci jàmmalaay dañ leen fa tere ngir ñu jóge fii. fii lañ dañ fii lañ nekkoon nekk. ñu génne fi ñu yóbbu ñu fële suuf pont ba ñu jëlee ñu foofu encore indiwaat ñu mais bi ñu ñëwaatee nag ñu ni léegi ñun duñ fi duñ duñ fi taxaw léegi loolu mooy problème bi nekk piste bi tamit gars yi waa koñ bi ñooñu tare ñu gaare fi ñu yóbbu ñu fële na le si suuf pont bi bi ñu yóbbee suuf pont bi foofu tamit dafa commencé taxu aussi ndax ñëpp nga fa jaaykat yi mécaniciens yeeg yëpp aussi loolu tamit dafa déborder tamit loolu te koñ bi bi ñu fi ñëw melul woon noonu léegi nag loolu tax jëlee ñu fi amuñu fu ñu taxaw léegi ñu ñëw taxaw ci kaw tëli ñu am sax ñu ngi leen di xoqatal te mairie bu Yoff def lu nu mel ngir ñu jóge ca bërëb boobu ñoom chauffeur yi nga xam ne ñoom ñoo liggéey ci bis yooyu ak receveur yi am nañ jamono ji jàppale ju mag askan wa dëkkee foofu ca jàmmalaay alors Charles defe naa <laughs> reportage bi lu bëri ak li nga doon wax ma ma wax gis nga gis nga il faut qu'on arrête de dire il faut qu'on leen di dimbali ngay gagné xaalis di ne Sénégalais dama lay dimbali te doxoo ko confort dox ko dara bi bu dee 60 000 francs le par jour loo ko waxee malal mm. c'est 1 million 800 le mois boo ko multiplié par 12 mois ça te donne 21 millions l'année nga multiplié par 5 ça fait 102 millions si biir nga am salaire yoo xamante ne fayoo 100 000 francs ñaari nit c'est boo fayee cent mille francs nit ki ba fin du mois xam nga sur l'année ça te fait combien un million deux cent. mais dina paana. non def defal ndànk attention je te dis. non attendez. cest dire déglu ma s'il te plaît oto mm. bu bees. Mm. bu def cinq ans. le rythme de pente tu penses que c'est tous les jours c'est quand ça fait dix ans lay pente tous les jours ñun ñëpp am nañ fi oto. macha mm. allah oto pendant cinq ans cinq premières années da ngay d'abord amoo. carte lu mu tudd visite technique les trois premières années euh, après pani balaa bu ñëw il faut cinq mhm. mais pendant cinq tu paies à deux ku si nekk cinquante le mois ça te fait combien kii l'année ça te fait un million kii ñaata un million deux cent toi tu as fait vingt et un essence bi mille francs par jour ñaata essence ngay dugal si biir par jour da dugal cinquante essence par jour c'est comme ça qu'il faut calculer et mettre et dire c'est-à-dire état fait 15 ans ngeen di dugal ñu ngi ciy discuter. parce que amuñu loolu Charles man dama am question pour yow Charles. c'est-à-dire que oto bu fekkee ne dañu ne dafa am une dure d'utilisation prévue. Mmh. su fekkee ne dafay dépasser foofu mais est-ce que y a une institution wala y a quelqu'un pour fair la police pour dire ne oto bi 5 ans la war a def. loolu mooy le premier aspect beneen bi mooy boo xoolee par rapport au reportage mais kan moo nekk di bu fekkee ne ñoom ñi dañu teggi yoon. parce que bu fekkee ne li ñu def mooy sur les contrats. ak yooyu teg yoon la. oui. Mhm. y' absolument bu fekkee ne nit kii par rapport ak kii muy liggéeyal l' employeur et l' employé. Mhm. mais est ce que amul ku fa war a taxaw nag pour. aar employé waaye le ministère du travail. mais personne ne fait son travail dans ce pays là. ça veut dire mais c' pour cela que tu as gens qui s' autorisent. dans ce pays là monsieur Mboup. c' est le transport boo ciy dugg di ci wax. xamul te pas mon tonton. mën nga nga euh, mën nga dugg si kàmb. d' abord li may jëkk a xool image bi ñu ngeen est-ce que taxawaayukaay bii rek bii rek wane na ni wane na du ñun suñuy autorité joxuñu ñu gëdd. parce que fii suuf la. du tali d'accord oto yi dañ fiy ngiroo. kon lii du terminus ca ci projet bi. c'est vrai terminus yi dañ ko war a aménager. ba nga xam ni panneau de publicitaire yi ñuy publicité. dëgg la suñu ñëwee sax man faa def seen i publicité. absolument client bi xaar oto bi. Mhm. waxuma la terminus bi mais dañ ne arrêt bi. Mhm. ci étude bi li mu génne woon arrêt bi. Mhm. bu ci client bi taxawee. dëgg warul am naaj. buy taw war na bu arrêt bi rek laa wax. dëgg la non dëgg la waaw dégg nga état bi état bi amuñu contrat non waxal ñu ci contrat yi li ñuy wax. état bi moom. contrat yi man mi wax ak yow dafa yomb. man mi wax ak yow ah, non dama bëgg a ñëw ci contrat yi non dama bëgg a ñëw ci contrat yi parce que intéressé na leen. c'est comme si aussi on était en train de. parce que temps baa ngi jeex te contrat yi dafa war a leer. non non on on on ne fait pas son procès malal. non non Ablaye Der dafa war a leer contrat yi dafa war a leer. on ne fait pas son contrat contrat yi loin de là. je suis désolé mais mhm. loolu lay gën a niir. non non non contrat yi ñu ngi koy def man mii wax ak yow nga xam ne damaa bokk ci responsable yi. Hmm. Mhm. sama kër ko amul contrat néew fa. maa ngi toog ñëpp di jàkkaarloo. yaa ngi versé say cotisation yëpp. dégg nga bu dee la fu ñuy fajoo. France bi moo raw moo raw ci mutuelle yi ci nekk ci Afrique mutuelle de santé yi man maa cee seetaan. Hmm. kon tiitatul lu ñuy fajoo. Hmm. wax daa ko pël gi dem fii ma ne malade bu jógee Afrique boo ko transmis su demee hôpital benn la des moom lañ koy ah. micro bi ah, ah, alors en attendant ñu ñu ñu defaral la ko dañuy defar sa micro baa ñu defaral la ko micro si si ci code de la route tout. baal moo génnul moo tax. a baax. mais monsieur yi am na man man dam man man man safaan si la pour nga xam loolu rek. man ko man maa la bëggal sama waaw man contrat yi. noo ko ma xam ci mi ngi door ni jaay bi. parce que dëgg rek laa gëm. waaw waaw waaw dëgg gaw parce que nag ba léegi maa ngi ci transport. dawal naa 42 cent. car rapide 12 cent urbain laa xam. te suñu borom suturaal na ma. benn yoon laa masee xam bu sama pëne laale muus. loolu nag suñu mënul suñu borom la kon métier mi yàlla am na lu ma ci may. Mm-hmm. Mm-hmm. ba ma nekkee transporteur bi 997. laa nekk transporteur bi ma nekkee transporteur ak léegi. Mm-hmm. am naa fukki sa sëfoor ak benn yoo xam ne ay transporteur lañu comme man te ci man la man la ko yàlla jaarale. loolu. nit yi duñ ko tudd dama ko wax ma ne pourquoi ñun suñu transport bi ni muy demee nit yi duñ ko tudd. xam nga boo demee Dakar dem dikk. Mm-hmm. am naa ñoo xam ne ñoo doon dawal dañ fi bàyyi dem Dakar dem dikk di wut retraite. am mm-hmm. lu wóor. Mm-hmm. ba ñu retraité Dakar dem dikk ñoom fekk nañ ma nekk transporteur baa leen di may 1000 francs kon nañ xool loolu yàlla def. ci côté boobu fii dañ fiy jàng am nañu ay receveur ki doon fii léegi dafa jubali bañ dàq ko. mu dem nekk ab syndicat ci biir AFTU. da doon ay ticket il faut mu leer. parce que bi nga ci rajo yi ratatati. ñay liggéey waxuñu. fii da ngay gis ay receveur yoo xam ne tey fukki receveur yu lu yor fii ne ñeent ñi ay receveur la ñu woon. ñu jël la di la fay salaire chauffeur mhm. bi xamu xamoo ko borom oto bi moo leen dajale jël leen gën a ci liggéey bi mhm. nga jubóog moom mu wàcc jël oto bi jàmbur mu yàqu ba mu am permis ñooñu ñu dem am na ci ñoo xam am na am embauché mhm. naa ñoo solo ah, dernière ñu xoolee retraite ñun balaa ngaa retraite fekk nga am loo jàpp am na ñoo xam ne tey cap tranche nag tranche bi nga xam mooy suñu banque danoo am ñun ay institution nag mhm. tranche mooy dimbali ba nga xam ne duñ xam ne ko am doole am koomu doole mm. su am nañu coopérative mhm. boo xam ne nag tranche mooy financé xaalis bi am na savóor yoo xam ne ca Tivaouane Peulh jot nañ seeni kër bu yàgg mais samba booy boo xam ne bis bu yàlla sàkk bu mbëkkul dara korosé dara boo tëlee oto balaa am ñaari yoon fu ne mu koos ko fa danga naan noo koy dàqe ngay xool waaye doo ko bàyyi mu yàq sa alal alors Modou dernière question waaye savour yi baax yi ñi ngi avancé savour yi baax yi seen salaire yokk nañ ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg ou pas allez Bouba dernière question pour toi man léegi léegi euh, bu leen lan mooy lan ngeen yaakaar ni moom la BRT bi mën a def ba ngeen continuer yéen di liggéey seen liggéey BRT bi ñun dañ ne suñu xam-xam ci li ñu xam ci transport mm-hmm. moom ak terre yëpp waaw mën na noo bokk ndakaaru di liggéey mhm. te kenn du yàqal morom naka waaw kay xaj nañ ci bu fekkee te ni waaw transport bi dañ ko teg ci yoon mhm. mais dañu gis ni tegul ci yoon mhm. parce que su fekkente ni oto bu amul licence te ñi licence lu muy jëriñ buñ nee ubbi nañu frontière bi ñu yokk aasu importe oto yi nga xam ne ci kii la lu ñu indi muy kalandoo ab immigré nekk fële ca réew ma déglu rek nekk ca réew ma ñun mënatunoo dem loolu transport la ñu xam su demee importé envoyé ñee ñeenti particulier su ñëwee ñu jox ko jarbaatam bu xëyee ma nga place de dépendance topp arrêt Dakar bi topp suñuy arrêt di jël di jël suñuy client autorité xool ko gis ñu ko mm. ñu bañ ñu koo jox danaan fa fan la ñu jëm man la mm-hmm. laa nekk mm-hmm. la quinze su ma déclaré jiwul sama TVA la ah, seize su ma demee ñu doon booy pénalité mm-hmm. c'est pas normal samay impôt sa vóor yépp maa ngi koy fay boo nee sama doom wala nee sama jabar ma jox la tata ci sama biir entreprise laa lay dugal. pour di la ci yóbbaale. parce que man maa ngi rajo bu nañu woo ma fa télé bu nañu woo ma fa su ma dee wax di ci ñeme. Mhm. am na fu ko teg. a tant que opérateur économique. ku bëgg na ma gëstu. dëgg la man li yoon santaane maa ngi ci. waaye li ma yoon war a jox nag su ma ko joxul ma laaj ko. nga laaj ko pour terminer comme euh, comme on a dit. là je suis d'accord avec mm. non ñëpp d'accord nañu ak Modou fi mu mm. daanele mm. moom. finalement Malal la réponse c'est pour yow. waaw pour man en fait euh, euh, pour man le transport ñu koy développer c'est c'est vraiment prioritaire mais c'est pas c'est pas urgent tout de suite parce que pour man. c' est des questions d' urgence. parce que déjà yaa ngi am yaa ngi defar prolongement VDN bi mu ngi taxaw Cambérène. et jusque là les Sénégalais n'ont pas une explication pourquoi mu. pourquoi pourquoi ce petit trochon là kenn réglé wu ko. c' est ce que ça dure depuis six ans. ça dure parce que le terre réglé pour man. balaa nga c'est-à-dire boo tàmbalee togg domoda. ngay bàyyi ba yàq. ok nit ñi lekk ba suur. apprécier domoda bi neex na ah, wala neex. du gàjj gi gàjj gi bër laaj. wala gàjj nañ jàll ci ceeb non par exemple mboroxe par exemple. non non suppu kànja. suppu kànja par exemple. Papis la réponse donc pour toi. BRT une priorité. organisation. Hmm? qu'on organise tout quoi chacun pour se retrouver. alors euh, Pape Djibril la réponse. état nu joué rôle am sa waay. li ñu li ñu fi wax yëpp mooy ay défaillance ñoo am. Mhm. à des niveau yoo xamante ni y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Mhm. Bouba. tontu bi ah, no man li ma li ñu war a njëkk def. mooy que lépp nga xam ne wax na ko fi. Mhm. muy affaire clando yi. c'est-à-dire nit ki aussi munoo ko fàtt noonu. démb dafa am du ma wax euh, ban corporation la dafa am benn homme de loi dama taxaw sama benn copain mu mu ne ni waaj sol tenue ne ni euh, clando bi dugg si biir ma ne ko lii. ça veut tout dire. di dem liggéey. fii ci almadi fii ci ci tali almadi bi nii. boo sàdd ngor bi waa ji mi ngi dem liggéeyam ne nii clando bi kii mën a dugg naturellement. pour te dire que quand ñii ok. il faut ñu def leen pression ba seen oto yi bu ñu ko dawalee pendant dix ans ñu changé ko bu ñu ko amortiré ñu changé ko mais aussi. mënoo mënoo immigré bu nee France. Hmm. wala ku nekk am na nit yoo xam ne. xantum oto bi ñu yore mooy jox seen dépense ñu jox ko benn waay waay ji chaque semaine mu mu mu mu jox leen kii loolu dëgg yooyu il faut les protéger c'est ça alors man pour man on enrichit les autres man ñu ngi enrichir ay yeneen dëkk du dul suñuy mbokk yoo xamante ne ñu ngi fii man loolu mooy suma gis-gis quoi si affaire bi yaa tudd gis-gis yegg si nañ ci